ñu euh, doxantu Mamadou Fofana ba sa zone des Niayes association bi ëmb béykat yi nga xam ne dañoo amee laago ñoom na njiitu réew mi la ñu bëgg mu jàppale leen ci wàllum subvention wàllum koppar financement yenn ci ay jumtukaay yi nga xam ne dana yombal seen a mbay ndax si loolu la yëngu euh, ñu ànd ak Cheikh Pierre Claver Pouy Mbaytaal xuma si seen ndaje ma ñu woote woon. ñu dajaloo ci app association bi nga xamante ne dina tax ñu défendre seen intérêt ñi nga xamante ne dañoo am laago te nekk ay baykat nekk ci zone des Niayes jànkonteel ay jafe-jafe bokk na ci ñàkk subvention ak financement bu jógee ci nguur gi loolu tey tax daal seen liggéey du demee noonu. zone des Niayes bi bari na ay handicapé yoo xam ne ñu ngi bay mais taxul ñu. vraiment bool leen ci askan wi parce que tamit maam gàtt na mais tamit ci jur gi la bokk loolu moo waral suñu booloog suñu daje pour mën a li nga xam ne état mi ngi koy dimbali euh, vraiment organisation paysanne yi nekk au niveau national ñu ñu mën cee participer. leneen li nga xamante ne ti nañ ko foofu moo jëm daal ci ñàkkum forage waaye tamit li nga xamante ne moo di pompe solaire ñoom li ñu bëgg daal fexe ba li nga xamante ne moo di yalwaan gi mu dañ. ñi nga am ndox mais doyul tax euh, ñu di ko wax. ba tax na ñu lancé on appel à l'état di ko wax ni ko vraiment ñoo ngi fii nii ci zone des Niayes bi vraiment di ko solliciter maanaam kuréelu béykat yi nga xam ne ñoo nekk zone des Niayes li ñu yitewoo ñun tamit yitewoo nañ ko muy maanaam gasal ñu ay forage suñuy terrain euh, monteel ñu ay asperseur euh, monteel ñu ay pompe solaire ñi nga xamante ne ñoo bokk ci association bi xam ne ne daal bëgg nañu association boobule ñu def ko ab coopérative Sénégal gi yëpp mën cee bokk ñoom nag li ñu bëgg moo di nguur gi taxaw leen ñoom association la ba mbay waaye laa yëngu ci mbay. ñu yelloo ko. ndax nag nit ki bu demee ba amee laago xalaatul ne war naa dem ci télé bi di tàllal sama loxo pour ñu dima dimbali. nga bëgg a jóge parce que tamit loolu xalaat la boo xam ne Sénégal tamit il faut ñu góor góorlu ci loolu. mënuñu rek nekk ci cycle boo xam ne assistanat rek lay nekk nañu jàngal nit ñi nañuy tàllalee loxo. nañu jàngalee nit ñi nañuy ñaanee ana plus finir ñu jàngal nit ñi ñu bañ a di daan seen doole pour mën a def seen i poos loolu mooy dëgg dañoo war a génn ci cycle assistanat jëm ci li nga xam ne moom mooy autonomisation pour nit ki mën a indépendant mhm. nekk way laago warut a tax place ba sa place moo di ne na nga dem ca taliba tàllal say loxo ñii dañ leen a war a dimbali parce que ku amee laago gàddu ay békki ak na mu méttee ngay dox di ji dégg ma kooku boo ko mm-hmm. jàppalewul kan nga war a jàppale maa ngi gis ñu naan way ay mutuelle xaw ma lan plateforme xippil xool nangam ak nangam ana mais mais mutuelle pour lan ci wàllu ah. mbay mi mm-hmm. mutuelle pour lan pour ne léegi way nañu nax encore baykat yi ana les bras financiers de l'État est-ce que tey mutuelle war na juddu ci ne ne way baykat yi nañ ko indil pour lan ñëw leen ngeen joxe ñu xool nañ leen dimbalee ngeen dem gàddu ko waaj a yor benn sareetam ak benn mbaamam benn fasam di kërti kërti la muy am du bari nga ne ko way indi ko te foo dégg banque ak mutuelle xamal ne naxaati ma nga ca parce que lañ lay teg ci ay asio wala lañ lay dagg di la ko fayeeku boo ko dajalee day mat la nga leb ñaari yoon wala ñetti yoon au noo de quoi